maa ngi gërëm Walfadjri mm, di gërëm Sidi Lamine di ko sant ci jéego yi mu jéego ci diine ji jël rajo bi eh, di ci wax la fii fi di ci wax luy jubale askan wi di ci wax lu rafet suba ngoon ci yàgg ci lool nag sax ci ndaxte li am solo ci doomu aadama moo di congrès sax fa yàgg fa buñ seen bi sax dañ ne mañ nee nañu ak kóllëre ji kuy jullit la ku jullitewu mun a am ku jullitewu dëgg dëgg dëgg mun a am kóllëre dëgg dëgg dëgg. ah mbir mi loolu nag nag tey pour laaj ma ci ma waxtaan si yoon daf maa daf maa yokk mbégte ndaxte ki may wax ay mbiram dama koo xam ndax ci kanamam laaj juddoo mu leewu ma tudd ma di sama sëriñu bàyyi bàyyam yar sama bàyyi sama maam sama maam mi jur sama bàyyi. di kóllëre di mu xadamu bàyyi maam El Hadj Abdoulaye Niass bon nag bu ne bii ma war dama ko xam bu baax a baax ku luum ku ko ràññee seen yëpp laa xam kër yëpp laa xam fu nekk jàng nañ fi alxuraan eh, maam Khalifa ay mbiram eh, bu mu yeboo ne wax dëgg yàlla jéggi na xam-xam doomu aadama simple ni man ndax am na mbiram yoo xam ne mënoo koo takk ci lu dul ci baatin bu sore sore sore sore li nga xam ne mooy yitteem boroom xam-xam di boroom diine jàngale xam xam jàngale diine ji ubbi nit ñi di leen digal ñuy jaar fu yiw fu sell wax ju jub wax ju sell loolu rek la taxawoon ci àdduna ku sonn mu dimbale la aajowul ngay taalibeem wala nga jóg ak foo mën a ku tox ba ñëw neseen yow sa coono jeex na kooku moom gis naa ko tey gis naa ko suba xeer wu nekk nag taxaw na fa xeet woo xalaat rek ci àdduna taxaw nañ ne seen nekk ci jafe-jafe ñëw ci kër xalifa ñu dimbale ko jàppale ko ba mu ba mu man boppam def li mu def mu dellu fa mu jógee woon wala mu toog fa loolu mooy affaire maam xalifa ah maam xalifa nag li mu bind ci xam-xam ñun li mu bind ci téere li mu bind ci ay ay woy li tubaab naan poème ah na mu toll man xaw ma ko xaw ma ko li mu ci wóor moo di doomu Alaaji Omar Alaaji Omar Niass demoon na jël téere yóbbu ko keer pour ñu édité ko def ko ay téere waaye bëri na bëri nga xam ne mënu foon toog di ko xaar ah maam Xalifa bind jàng ak jàngale ak topp askan wi rek mu waroon métier am yaduñu ci diine yaduñu ci lislaam tey ak sell lii mooy mbiri maam Xalifa lii liggéeyal àdduna ci yàlla may na ko xam-xam bu nga xam ne ci kàllaama arab bokk na ci nga xam ne ñoo ci ëppoon xam-xam ak man-man ci kàllaama arab ci ci Afrique de l'Ouest ñu naan Soudan ah, léegi nag euh, li ne koy sugal moo di euh, ñu daan jàngal bëri na ci ñoo xam ne sax ay fonctionnaire la ñu woon am na suñu papa ju baax joo xam ne du mu tudd turut waaye dafa bëggoon diine bëgg lislaam bëgg maam xalifa bés bu yàlla sàkk bu wàccee ñoom fonctionnaire bi ñëw di yokk seen xam-xam ci ci moom ci góor googu laa mës a déggee benn téere téere benn livre le Coran traduit étienne diine bari na waaye loolu yëpp xam nga du loo xam ne mbóot la mënoo ko wax ci rajo mënoo ko ci télévision day mel ni da ngay wane sa bopp wala day mel ni leneen la waaye njur maam xalifa yàlla rek noo ko xam yàlla ko indi yàlla ko xam li ñu xam ci moom rek li ñu ci moom waaye léegi ci moom ñun xamuñu ko C'est avec beaucoup de fierté et de plaisir que je vais parler de Mame Khalifa Niass, euh, qui m'a vu naître, euh, qui m'a élevé, qui m'a éduqué. Et je conseille quand même pour rendre un hommage particulier à Sidi Lamine euh, pour son œuvre pour l'islam et également M. Assane Diouf avec son émission prisée par tous les Sénégalais. Je le félicite pour son assiduité, pour sa fidélité à Sidi Lamine et vous tous d'ailleurs. et pour sa maîtrise et la parfaite tenue de ses émissions. Euh, Mam Khalifa Niass donc est mon marabout comme on dit au Sénégal mooy sama sëriñ parce que mon père a été élevé par le père de Mam Khalifa en même temps que Mam Khalifa et que mon grand-père paternel était le compagnon et le premier apôtre de El Hadj Abdoulaye le père de Mam Khalifa. Donc euh, je suis en milieu, je suis en terrain bien connu. Donc euh, Mam Khalifa, un on peut parler de Mam Khalifa, parler de son œuvre, de l'homme et son action dans la société sénégalaise au moment de son existence. Son œuvre est immense. Et il y a des gens plus qualifiés que moi pour en parler, parce que moi je suis pas arabisant. Il a écrit en arabe, mais nous avons vécu avec lui. On n'a pas lu ses œuvres, mais on sait, nos papes, nos pères nous ont expliqué, parce qu'il leur a expliqué également, nous savons ce que Mme Khalifa a dit dans son œuvre. Mme Khalifa était au service de Dieu, également au service de l'humanité et de la société. C'est un homme ouvert, ouvert à toutes les idées, un érudit. Il n'y a pas de qualificatif pour parler de l'évolution de Mme Khalifa. Et sa poésie est l'une des plus fécondes de l'histoire euh, musulmane de l'Afrique de l'Ouest. Il avait une passion, l'enseignement. Son emploi du temps s'est résumé comme ceci. Le matin au réveil, les jeunes enfants du quartier, tous, tous, tous les enfants du quartier, tout le monde se rendait chez lui, lui dire bonjour. Et à l'époque, Vers les années Mam Khalifa donnait à chaque enfant une pièce de 5 francs ou de 10 francs, quel que soit le nombre d'enfants qui viennent à eux. C'était sa première activité dans la journée. S'occuper des enfants, son amour pour les enfants, son amour pour les hommes. Et c'était fréquent de, dire, de voir les enfants dire à leur maman, à ah, maman, prête-moi 5 francs, je va me donner francs, je vais te C'était son amour pour les enfants. Et tout le monde sait que c'est une qualité le prophète avait euh, une passion pour les enfants, pour l'enfance. Et Mam Khalifa a suivi les traces du prophète. Il a suivi les traces de Cheikh Yarshif radiallahu ta'ala anhu. Ça, c'était son occupation du matin. À 9h, 10h, il commence à enseigner. Il avait une école comme Aristote, comme Socrate. Il a enseigné. C'était sa passion. Et Les étudiants venaient de partout. D'abord ses propres enfants, sa famille, les talibés et des cadres de l'administration coloniale qui venaient s'enrichir dans le domaine de la religion et de l'islam. Il enseignait jusqu'à 13 heures. 13 heures, c'est l'heure du repas. Il partageait son repas avec tous les gens qui passaient devant sa maison. qu'il soit de, de, la famille ou qu'il soit euh, à euh, de l'extérieur de la étranger à la famille. Tout a mis de tout ce qui est passé près de chez lui pour venir partager son repas. Il y avait, il y avait des bols partout. Euh, c'était comme une euh, cérémonie euh, familiale, quoi, une, un baptême ou euh, une réception quelconque. Tout le monde pouvait venir manger à midi chez Mme Khalifa, sans être connu, et d'où qu'il vienne. C'était sa passion pour les hommes. C'était son, humanisme. Euh, disons, le, euh, le, le, il était charitable envers tout le monde. il, il remarquable pour ça. Ensuite, après le repas, il l'enseignement reprenait jusqu'à 17h. Il s'arrêtait à 17h. Et je me rappelle, c'est à cette heure que fréquemment, j'accompagnais mon père, Maudoussek, il est très connu dans le Mélinacène, pour aller voir Mam Khalifa. Il s'entraînait avec mon père de temps en temps et j'accompagnais mon père. Donc sa passion, c'était l'enseignement. Après l'enseignement, c'était l'écriture. C'est l'un des poètes les plus féconds de langue arabe en Afrique de l'Ouest. C'est connu. Il y a des anecdotes que je laisserai à Fidel Lamine à ses enfants de vous raconter euh, avec plus de saveur, avec plus de ferveur.

donc le pouvoir colonial avait envoyé une lettre à tous les gouverneurs de régions de l'Afrique de l'Ouest et cette lettre a fait le tour de l'Afrique. Et très peu de gens pouvaient lire cette lettre et la traduire parce qu'elle était en arabe non vocalisé. Et un arabe très profond et très dur. C'est Mam Khalifa qui a traduit cette lettre. il y a une chanson jusqu'à présent, un, poème, dans lequel on, chante cet événement. Letterbang Letterbang jógoo koo faas daanu taaxi nangaan ñan euh, xalifa yaa yaa yaa fi surtout Sodan Sodan ça dire l'Ouest africain ce qu'il a écrit comme poème je connais pas le volume de ses œuvres mais ce que je sais il y a un de ses fils El Hadj Omar Niass qui a été le premier à les avoir fait éditer au Caire C'est une œuvre tellement immense, tellement immense, qu'il ne pouvait que faire imprimer, faire éditer une partie de l'œuvre. Tellement c'était immense. Même Khalifa était Mouroudi, euh, il a un savoir incommensurable. Ça c'est vraiment l'intellectuel, euh, c'est l'écrivain, euh, c'est l'érudit, c'est le philosophe. Et les connaissances de Mam Khalifa étaient étendues, étaient, euh, disons, Mam Khalifa était multiculturel. Il s'intéressait à tout, il était ouvert à tout. Le matin, avant de commencer les cours, il lisait la presse. À l'époque, c'était la presse en arabe. Il y avait à, à Kaoulak, Saradar, c'est un, il est arménien d'origine, il est français mais arménien d'origine. C'était la seule librairie de Kaolack où l'on vendait les journaux. Paris Dakar à l'époque. Petit Joule, le journal de, de euh, Moursi Voisin, ça vous a fait jeune, des anciens vont vous lire. Et même Khalifa lisait cette presse. Il était au courant de l'actualité nationale, internationale, avant de commencer les cours. Donc, ça prouve son ouverture sur le monde, son ouverture sur son époque et son intérêt pour les activités de l'époque. C'est une ouverture. Maintenant, euh, l'aspect le plus important, évidemment, dont je ne parlerai pas ici, euh, n'est-ce pas, parce qu'il y a des gens euh, plus qualifiés peut-être que moi pour en parler, mais dont je sais beaucoup de choses, euh, Mam Khalifa a réalisé des miracles. Je n'en parlerai pas ici parce que ce n'est pas une vidéo, Hein, c'est c'est pas lieu d'en parler. Euh, mais euh, ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont vécu, savent que Mame Khalifa avait une dimension euh, extra-humaine. Oui, il était, il était au-delà de Mame Khalifa. C'est c'est c'est c'est c'est un homme extraordinaire. Moi, j'ai vécu des situations. Sincèrement, je ne donnerai pas les détails. Euh, ceux qui, ces enfants, ces petits-enfants, ceux qui sont proches de moi, euh, en savent un peu. euh, j'étais dans des situations à l'étranger, à l'extérieur, je n'ai rien commis de mal, je n'ai rien fait de mal, mais j'étais dans des situations un peu, tellement délicates que je ne savais pas quoi faire pour, pour, pour me sortir de là. Mais euh, euh il me suffisamment d'évoquer son nom, sa grandeur, et j'ai eu des, tout de suite, comme par miracle, je me suis sauté l'affaire. Je ne pas ici les détails, parce que vraiment, ce n'est pas le lieu. les gens qui me connaissent le savent. Euh, c'est pas le seul fait. C'est plusieurs fois Hein, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment, c'est son aura, c'est sa sainteté, c'est sa grandeur, son amour de, son amour de l'homme, hein, c'est, c'est, c'est, c'est sa place euh, you know, vraiment vis-à-vis d'Allah. Euh, Mame Khalifa est un homme exceptionnel, sincèrement, pour nous. Et qui dîner, c'est l'une des meilleures traductions du Coran au monde, que je sache jusqu'au jour où je vous parle. C'est à, à travers ce, ce, ce, ce papa-là, notre papa à nous, qui venait tout le temps chez Mme Khalifa, qui nous a appris ça, qui nous a montré ça. Et ce livre, je eu, par hasard, je l'ai acheté à Paris à chez le bouquiniste, mais malheureusement, je l'ai produit, je l'ai plus dans ma bibliothèque. Mme Khalifa était un rassembleur, c'est un homme de Dieu. Il s'intéressait à toutes les sciences humaines. Il s'intéressait à l'humanité tout entière. Il protégeait tout le monde. Son amour, c'était l'unité du peuple du Sénégal et son amour c'est une la fraternité entre les hommes c'est ça que je retiens d'Ahmed Khalifa maintenant les détails qui relèvent du, miracle ou des, faits extraordinaires mais j'en ai de multitudes j'en ai de multitudes que j'ai vécu personnellement personnellement personnellement ce n'est pas un seul fait ce n'est pas deux il y